envoyez de l'argent au Sénégal depuis l'Europe et le Royaume-Uni avec TapTapSend. Vos proches reçoivent l'argent directement sur leur compte Wave. C'est rapide et il n'y a pas de frais de retrait. Chez TapTapSend, la sécurité et la rapidité de vos transactions sont notre priorité. Qu'attendez-vous? Effectuez vos transferts maintenant. tey waaw tey saag bi noonu sa ñaar loxo waaw tegal bi nii tegal loxo waaw. madame Sarr. daay daay da daa xool nga wane madame Sarr rek mu siiw naka la mu jëkkee. benn bi wan bi def ma wan. daay daa awa yaa ko fa am waaw tëndeel ko fa am. ok noonu ma. Sua liga ka tas ba pare. Son, fi son. Bëgg waaw ok sigil sigil sigil kon. waaw. ñëwul fi ma jaar. tëm na tëm na waaw tëm na tëm na voilà ok tëm na bu baax ñëwaat. li mu fu mu jógee. 24 heures mi ngi yéen sa vidéo yi. ventro bi pousse na yow. ventro mi ngi yàq sa vidéo. non non est-ce que kii la. aywa mënoon na mënoon na dem si kaw ngeen am ko ci dëkk bi fii tàng na tàng na métti na. non sinon kii xaaral. mais boo léegi ma génn léegi pare jeex na. xoolal xoolal léegi day teg loxo bi nii mu nga wàccee nga suuri def mu wàcc. waaw dégg naa sof na la. waaw waaw waaw. nekk amee sant leen yàlla. dèjà kàlla ñu dem muy guddi kenn photo wu leen.

Ndeysaan barkeel. amiin njaboot su barkeel ci biir. am wërsëg am diine. amiin ba teral ni ñu terale baayam ak yaayam. amiin yàlla na ko doon njabootam teral. amiin amiin yàlla na ko doon ñaanal. ñaan yàlla yàlla na ci amasee. amiin jërëjëf. ah jeex na doxal ci kaw lañ dox. non ñëwal ci kaw ñëwal ci kaw ñëwal ci kaw ñëwal ci kaw waaw maa ngi foto. baax na waaw. ñëwal keroog moo dama ko mën a gërëm Sarr moo dama toog Sarr. waaw dinañ ñëw jox la léegi ñu dem. ana ana Ibrahima. Ibrahima mu ngi ci kaw. ak nañ jël. ndànk rek. waaw kañ dem. kon ndànk rek. ndànk ndànk rek. xaaral xaaral ndànk rek. salaamaaleykum. yaa ngi toll nag. non non ñoom ñoo ñoom ñoom dara. waaw waaw saa tuuti xale yi. ñoom ñoo ñoom ñoom ñoom. ñëwale ñëwale waaw. wala mu ngi mu ngeen taxaw nii. ok moom xoolal ki ngeen àndal rek mu accompagner leen yéen. mara wuutu. waaw Kaaluma Assa sama doom bi sama rakk di kóol bëgg ma lool. waaw kay. sama rakk di kóol bëgg ma lool. nga ma faale nga ma jox nga ma teel sama teel waa Kalle maa yaa di sànni bii la xamal nga kii kon doo fàtte maa doo wuyu doo peegat doo kabaabat doo doo partout. non non non non. da ngaa baax. sama la tey woto woto baax nga gën nga risque sama waa ji kon xamu naa ne. sama Ibrahima sama rakkaay waa Calma foog nga bëgg nga ma yëg nga ma faale nga ma. waaw sama rakk ji waa Calma sax ak tey na tey su ma nekk tey dinaa toj xew bi dugg xew boobu moom. balaa nga kaa toj ma nga jafe ko. tey xam naa tey bàyyi bi daal tey laaj waaj. balaa ngaa toj rek ah si bu wér. Eh, tëggal li ngay def tëggal li ngay def dugub. laay laa xëy la laa sama rakk ji waa Calma sax kott foon ko kott ko. waaw dëgg la dëgg yëngu. waaw eh waa Calma tey foo ne rek. waaw waaw. laay laa xëy. ba toppatoo ko incha allah régal ko sama waay sama waay la rek sama waay dëgg la demal pour bindoy gëna ko am na ne bësu mel ni di ko am may ko ko ko ko moom de xew bi ñëpp yaa ngi koy xuloo baax na. kóorte rek la ñuy toog. waaye nag seetlu naa ne yaay waaye xam nañ ko tey. lu mu yor ak lu mu yor yëpp jox na la. bëgg nañ la nag Codou yaa ngi tàngal. yaa ngi suñu bëgg nañ Serigne Touba. Codou keneen du ma neewal nag man Philippe maay wax ak yow Codou. Philippe Ndiaye ngay sama xarit. di suñu xarit. yaa ngi sagal Codou. yaa ngi teral. parce que Serigne Touba kenn du yow si réew mi. ñëpp ku ne yaa bëgg Codou. parce que tey yaay booy lañ lay wax. Codou dootoo dégg ne bi yàlla na màgget. yaa ngi suñu jabaru màgget. dootoo dégg Codou yaay booy lañ lay wax. yaa baax yaa baax. xamoon ngeen ne bés bii di ngeen ko am. suñu yaay ji yaa baax. bilaahi loolu rek ngeen dégg. bañ la xamee ba tey la suñu bii changé. waaw. ubbukaay bi ay doole ko abal ubbukaay ah mi ngi ñàkk de. ànd ak yow ci lépp. ànd ak yow ci xam sama waa ji nga baax bari jom bari valeur bari personnalité juddu woo ci munuma màggoo ci munuma aboo juddu aboo taar doo bandi doo woyu doo porok eh ñaari defoo bii ak bii ak bii bëgg na bii defoo sama waa ji mbokkum ndey bii bii bii Mody Diop ana ñu waxoon doo